bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si le mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni ñu koy baaxu ji defee fajaru dimanche mooy ànd ak yéen ci min noo si sunna min ku si sunna di ay jataay yoo xam ne ñi ngi ko tuddee trésor bu sunna te mooy barab ba nga xam ne fala sallallahu alayhi wa sallam dencal xeetam bi ay njëriñi àdduna ak ay njëriñi àllaaxira te sunu tomb ci min ku si sunna mi ngi jëm ci gunge weer wi mi ngi jëm ci gunge weeru koor wi foofu la jëm gunge weeru koor wi mooy woor bi ñu woree ci weeru korite wi nga am ci juróom benn fan xam naa mi ngi bëgg xaaj bu fekkee xaajut waaye daal nga fexe ba am ci juróom benn fan ndax koor duñ ko gàttandu waaye dañ koy gunge dañ koy gunge su fekkee woor nañ ba wori nga woor ci weeru korite wi juróom benn fan bu la neexee nga def ko ci fukki fan yu njëkk yi bu la neexee nga def ko ci fukki fan yu ci digg bi bu la neexee nga def ko ci fukki fan yu fin ba bu neexee nga woor ñaar ci fukki fan yii woor ñaar ci fukki fan yële le ñaar ci fukki fan yële loolu laa bëgg a wax mooy bu la neexee taqale ko bu la neexee taqale ko bu la neexee woor trois noppal ba ci kanam nga wooraat trois bu la neexee nga woor deux noppalu ba ci kanam wóoraat deux noppalu ba ci kanam woor wóoraat deux maanaam daal liñ lay wax rek mooy biir weeru korite wi bu mu ko génn léegi nag yaa seet noo nu mu la jekkoo rek am na koo xam ne kii bu waree comme daa ragal koor day wax ne naa ko enchaîner taqale ko ca rek bu neexee am na koo xam ne kii bu waree bisu korite bi ci ëllëg sa lay tàmbali bu la neexee bu la neexee l'essentiel na nekk ci biir weer bi tudd shawaal te mooy korite na ci nekk rek fu mu fi nekkee rek baax na allahu akbar ndax sallallahu alayhi wa sallam daf noo daf noo yéene tuyaaba waaye daf noo yërëm xarisun aleykum bil muminina raufu rahim su ne woon ñu taqale ko ci am na ko du ko man kon imaam Ablaye Ndaw du ko man bu ne woon ñu taqale ko ci nga xam ne lu mu ne woon ngéej koor gi <laughs> koor gi jeex bu ci bëggee taqale juróom benni fan du ko man moo tax yonent bu wax rek ne nañ ko def rek ci biir weeru korite bi léeg-léeg itam am laaj soxna Yaasin Jóob ci ndar laaj waaw man damaa am juróom benn fan yu ma leb ci koor gi bëgg a gunge nu may def nu may def ci ki ko man li mu war a def mooy gunge ba noppi soo noppaloo fay ndax fay gi fii ba baraxlu wa foo faye baax na loolu am na boroom xam-xam yu ko tërale noonu waaw dangay gunge ngay gunge boo noppaloo ba sa yaram lil nga fay ndax fii ba baraxluwa foo faye koor gi rek baax na fa iddatun min ayaamin uxar am na ko xam ne kii nee na moom dafa bëgg boole fay gi ak gunge gi su boobaa day xam ne gunge gi du farata fay gi mooy farata mu jiital yéeneeg fay gi teg ci yéeneeg gunge waaw ginnaaw pexe amut <laughs> te lislaam du gedd mooy la baax na waaye nee nag moo gënoon mooy gunge weer wi soo noppaloo fay gunge weer wi soo noppaloo fay waaw te ñaan borom subhaanahu eh, yépp fekk la fi gunge gi fekk la fi fay gi fekk la fi waaw waaye itam kii mu ne jëkkëram da koo wax ne danga may tàggu booy fay déedéet buy gunge la lay tàggu buy gunge te bim lay tàggu day fekk bu dee ñaar ngeen mu aye sa kër walla kenn nga mu yendu ci kër gi yàgg moom te muy góor guy soxla jabaram bëccëg su yooyu su yooyu nga woor te yëgu ko du ci wàññi dara alayhi salaatu salaam ngir woorloo ñu bis bi xemmem leew ñu ko dañu jële ci abu ayub al ansaari abu ayub al ansaari waaw dégg ngeen ci turki seen école bi fi nekkoon mu tuddoon ayub sultaan ndeysaan ayub sultaan ayub sultaan mooy abu ayub al ansaari moom la alayhi salaatu salaam daloon këram bi mu ñëwee almadina fii jumaay madina ji nekk tey foofu la këram moo doon këram fee ñu denc alayhi salaatu salaam tey walla soriwu fa abu ayuba mii kero ba yonent bi ñëwee moo ko dalal ba mu xëyee di waxaale teere yi ñoo ànd teere yi mu def jàkk ji ba ñu xëyee di ko waxaale ñoo ànd waaw ak yi ci xew yépp abu ayuba ànd moom ci njëkkak ak teraanga ngor badara jaag uhud ja xare bay xare ya nàngam ba mu jeex kere bi yonent bi defee fatxu makka nag taxaw ci arafa ca ajam nga bokk xajatul wada ajug tàggoo ga daal wax discours am bu rëy ba moom alayhi salaatu wasalaam discours bu te ëmb njariñ waaw léeg-léeg docteur Ablaye Lam Sam ñu nekk ci Arafa mu fàttali ko ujaaj waaw tabarkal bi yonent bi noppee da cay teg kàddoom gu am solo ga nga xam ne ku sonn ci borom xam-xam yi moo la sonal daf ne fal yuballiqi shaahidu minkumul ghaayib kàddu gu la waxoon fal yuballiqi shaahidu minkumul gaayib koo xam ne fekk nga discours bii fexeel ba dugal ko ci noppi ku ko fekkiwut allahu akbar ku fekkee discours bii mu dugg say nopp yontu bi ne maa ngi lay ñaan nga dugal ko ci yeneen nopp yu doo sa yos loolu loolu la waxoon keroog ca jataay ba ah waaw waaw abu ayub bi mii di nettali addis bi daat na ñay ñibbi madina nuyul leen ma sama waa kër allahu akbar loolu la wax waa ñay ñibbi madina nuyul leen ma waa kër ga waa kër gan kër gi daloon alayhi salaatu salaam nga xam ne jamono jooju R plus 1 la woon R plus 1 ci nañ daan tabaxee ñoom seen culture ci jamono jooju ma nga faaki jabar ak i doom ak i tool yonent bi lii mu ne ah nuyu leen ma sama waa kër moom jaar siwul Madina déedéet foofu la jógee Turki la àkke ji xam ngeen distance boobu di war mbaam ak a wàcc di war mbaam ak a wàcc ba àgg Turki moo lu wut Turki li yonent bi dugal ci noppam bi la bëgg dugal ci nopp waa turki moo tax saxaaba yi kenn du ñoom waaw asxaaba rasulillahi inni xadimuhum muhibban lakum fillahi seetet saxaaba yi kenn du mbokk yi nañ taxaw seetlu yonent bi daf ne fal yuballighi shaahidu minkumul ghaayib ku discours bi dugg ci noppam na fexe ba dugal ko ci nopp abu ayub al ansaari ma dalaloon ko ci madina amoon fa yépp ay jabar ay doom ay surga ay sët ah ay tool waaw ay kont ay gëléem ay xaraki nag ki béy moom daal daf ne waaw ñee demal rek nuyu leen ma waa madina mu yéen lu xew daa bëgg a doxal ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam ne na ngeen fexe ba mu dugg ci nopp yi boo ko teg seen nopp yéen ñu ko dégg ma mbokk yi léeg-léeg nga taal benn télévision bu tudd 2STV seen Oustaz Ahmed Dame Ndiaye mu toog jóge Kër Masaar topp guddi gi dawal ba ñëw toog fa wax toog lu topp waññee ko at fa jëm këram <clears throat> lan la ci bëgg mooy loolu yonent bi wax ne ku fekke yëf yi na ko dugal ci nopp yu ko déggut loolu la ciy wuti pourtant léeg-léeg nañ ma baal nag damay misaal nga dem ci rajo mbaa télé ñoom seen yooyu sans contrat sans contrat loo koy doyee ginnaaw abu ayuba lii dugg ci nopp yi jaral na ko bàyyi alalam jëpp dem defi ko war na laa bàyyi jaral yow tam bàyyi sa njaboot gi ak alal yëpp dem defi ko moo waral nit ñi di fanaan ci tele ak rajo yi di wax ci diine ji bon boo def journaliste wala nga nekk ko benn am animateur wala nangam ki nangam euh, yàlla xam doy na yàlla xam doy na <laughs> waaye mu ngi noonu rek lim lim jaral abu abu ayuba na nanu ko jaral nu ko jaral léeg wax ko nanu ko jaral de abu ayuba moomu la nekk ca turki tey ginnaaw yàlla ca discours boobee la jóge discours booba mu mu ëmboon jële ko Madina jële ko Makka jële ko ci annabiyul Mustafa yar bi mu yar nit ñi Abu Ayuba yaroo noonu waaw amul benn complexe mel na yonent ba bëgg mu mel ko ba mu ne jeef turki tàmbali liggéeyam ba def na ci waa turki benn benn culture islamique boo xam ne moom la ñu doxal ba démb turki rek nga gis seen président ñuy robbi nit mu ŋàbb ca jaat ga waaw ŋàbb ca jaat ga moom ngay dégg dara nit tëll ci lislaam mu jóg wax ca waaw tabarkàlla doonte léeg-léeg mu am mawxif boo ko meree waaye am na mawxif boo xam ne bi danga xam ne ma mawxif bi position bi tabarkàlla noonu nit nag noonu la waaw nit nag noonu la fa inna ma'al usri yusran rek nit noonu la waaye daal réew moomu abu ayuba defar defal leen formation ñoo doon dox ba jëmmi jamono ñu ne waaw ñun làkku arab wi ak sunu làkk wi wun ci moom ñu gëm ne seen làkk walañ moom ñu ne waaw ndax làkku arab moom diina la wala du diina ñu ne du diina de aw làkk la làkku yaaram la nag làkk wu baax la ñu ne teen fee bàyyi làkk woowu te làkk sunu làkk doxal ci sunum réew moo leen taxadab réew yi baree baree bari union européenne gis ngeen seen digganteeg Turquie waaw teenu noo sarax ñëw bokk <laughs> abu ayoba moomu <clears throat> loolu ab tënk la ci moom jamono dana ñëw incha allah wala jamono ñëwoon na ci bi ngeen di dégg rijaalun hawla rasul ngeen déggoon ko ci sunu waxtaani albidaay yi abu ayuba nee na waaw dama leen bëggoon wax kooku rek ngeen xam lim déggee ci yonent bi toxal ko Turquie tey mu dégg ko ci yonent bi bëgg ko toxal ci onde Sud FM yi waaw <laughs> nee na yonent ba nee man saama ramadana summa atba'ahu sittan min shawal kaana ka siyaami dëhër nee ku woor weeru koor ku woor weeru koor gunge ko juróom benn fan ci korite wi woor nga at mi yépp ah waaw waaw woor nga at mi yëpp euh, soxna Ndeye Fatou Diallo comme daa bokk ci ñuy noté noteel bu weeru koor bi nekkee trente jours jours bu ne sunu borom defal ñu ko dix kon am nañ trois cent jours hmm? waaw am nañ trois cent jours ñetti téeméeri fan kon su boobaa moom la ñu am ñetti téeméeri fan hmm? waaw waaw kon ku woor weeru koor wi am nga ñetti téeméeri fan dégg nga léegi mbokk mi daal ci dolli juróom benni fan juróom benni fan fan bu nekk ñu dafa la ko dix muy soixante kon am nga trois cent soixante jours trois cent soixante jours waaw bi nga amee trois cent soixante jours ginnaaw weeru weeru wolof weeru wolof trente jours rek lay nekk maximum maximum trente jours lay nekk maximum trente jours fois onze trois cent trente waaw trois cent trente bu fekkee boole nga ci euh, weeru koor wi ci boppam muy douze nga am trois cent soixante maanaam mbokk yi yonent bi alayhi salaam ab calcul la ñu def lool daf ne ku weeru koor ba mu jeex nga gunge ko juróom benn fan ci korite bi yëgal ne woor nga at mi yëpp yëgal ne woor nga at mi yëpp ñu ne acca nañ def calcul bi ñu ne kii daa woor trente jours trente jours man jaa bil xasana falahu ashru amsaaliha kon trente jours jour bu ne dix la ñaata nga am am nga trois cent jours woor nga ko ñetti téeméeri fan woor nga ñetti téeméeri fan léegi na nga ngi weer wi juróom benni fan juróom benni fan ñu defalaat ko fan bu nekk fukki fan léegi am nga juróom benn fukki fan dolli ca juróom benn fukki fan muy trois cent soixante jours trois cent soixante jours ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukki fan ñu ne waaw ñu ne dellul ci weeru weer wolof weer wolof du nekk trente et un trente rek maximum kon calculer trente trente jours fois douze trente jours fois douze nga daal di am trois cent soixante jours kon la weer bi la at mi di mat bu fekkee yépp trente la yonent bi yal na nu yàlla fayal xoolal rek. danga woor weeru koor ba mu jeex nga ko nga ko juróom benni fan at mi yépp war nga ko at mi yépp war nga ko def leen calcul bi rek ngeen xool lu rek la moo tax kon nan sawar ci gunge fe gunge weer wi même daw ko ndaay gis naa ne ñi ngi ñi ngi jéem a gunge kon loolu lu am am solo la loolu lu am am solo la kon gunge weer waa ngu noonu juróom benni fan lay doon ci biir weeru korite wi lay doon fum fi doon baax na ndax weer wi ñetti ñetti pàcc la awalu wasatu aaxiru dix dix dix wala fukk fukk fukk ñetti fukk yooyu fexeel ba balaa jeex rek actuellement nii fi nekk comme comme neexoon tàmbalee gunge ndax weesoo gut weesoo gut boo fi toogaatoon juróomi fan bu la neexee tàmbalee gunge ndax weesoo waaw weesoo de waaw kon nag koor ndekete mbokk yi nii la ko alayhi salaatu salaam jàngalee mu wax ci hadis boobu abu ayyuba nettali man saama ramadaana waaw thumma atba'uhu sittan min shawal kaana ka siyaami dëhr abu ayyuba nee na yonent yàlla ba nee ku woor ramadaan <clears throat> ku woor ramadaan ba mu jeex nga toftal ca juróom benn fan ci korite wi woor nga at mi yépp am nga tuyaabay ku woor at mi yépp ndax woor nga at mi yépp ndax alxasanatu bi ashri amthaliha waaw benn boo woor fukk lañ la koy defal defe na calcul bi maag yéen noo ko ànd bu ma ko doon def ci wolof dama naan nit ki woor na fanweeri fan fan bu nekk defal nañ ko ko fukki fan kon mu am ñetti téeméeri fan lay am mu gunge weer wi ci juróom benni fan fan bu nekk ñu defal ko ko fukki fan muy juróom benn fukki fan mu boole ñetti téeméer yële ak juróom benn fukki yi muy ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukki fan mu ne waaw mu ne boo jëlee weeru wolof calculer leen ñoom ñëpp fanweeri fan fanweeri fan ñoom ñëpp fanweeri fan ba muy fukki yoon ak ñaar day daal di nekk moom tam ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukki fan kon loolu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa mooy ku woor weeru koor gunge ko juróom benni fan woor nga at mi yépp professeur su ma juumul ci calcul bi euh, noonu noonu la tekki kon mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam nii la ñuy defal nii rek lañuy defal waaw ndax dafa bëgg xeetam yi su ëllëgee lam waxoon mbokk ma mu wax leen ko mbokk ma daa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam defal ko dara yonent bi kontaan ne ko loo bëgg waaw loo bëgg mu ne ko xanaa ànd ak yow ëllëg aljanna mu ne ko leneen nag mu ne ko xanaa ànd ak yow ëllëg aljanna mu ne ko leneen nag mu ne ko xanaa ànd ak yow ëllëg aljanna yonent bi xool ko ne ko kon nag jàppalee ma bëri ay rakka jàppalee ma bëri ay rakka salaaw soo bëri ay rakka ma plaidé ba nga ànd ak man ëllëg ci lay gën a yomb ci soo bëriwul ay rakka loolu tam kon koor gàngoo ñu jàppale yonent bi ci sunu bopp woor fan fan gunge koor gi boo ko defee benn at ñaari at ñetti at jàpp fan weeri at bu la yàlla nangu leen lépp allahu akbar ndax ku woor benn bés ci koor gi te yàlla rekk tax yowmal xiyaam da nga soree sawara juróom-ñaar fukki at ci dox juróom-ñaar fukki nawet waaw distance boobu nga koy soree te foofu ko fa sori distance boobu am na foo jege kon ginnaaw bi ñu waxee woor ashura wax woor lëndeeg jeudi wax woor treizième quatorzième quinzième ci weer wu ne wax woor ayaamul biid mooy fan yu weex yooyu lañ wax wax kooruk daawu dëgga woor bés dëg bés yéen ñépp dégg ngeen ci koor ni ko yonent bi bëgg ak ni mu ko bëggale xeet wi ndax koor munta am njistal koor munta am njistal yàlla rekk lañ koy defal tey danaay wax ne ni la ministre Aly Ngouille Ndiaye yal na ko yàlla yokk wér bu fekkoon moonu sant koor gi gendarme yeeg alkaati yeeg douane yeeg <laughs> militaire yi mu àbb leen lépp mën na koo boole te du nu mën a woorloo gis nga fi ne bi mu ñuy takkaloo masque rek coono bi bi mu ko dikkal bi mu naan takkaleen masque rek coono bi mu ko dikkal <laughs> waaw si kenn mësu koo gis rek te bu fekkoon yàllaa ne takk leen masque bu subaa ñëpp takk ko ndax bi mu ne woor la nun ñëpp woor ba mu des tuuti mbokk yi koor kon lu am solo la day defar ruux di yar nit di defar ay jikkoom di ko jàngal lewet di ko jàngal tabe di ko jàngal bokk ak bokkam lim am di ko jàngalu gu yaatu lépp koor da koy def wax naa ne rek bi ñu génn ci koor gi sunu borom woorloo nu ñu woor fanweeri fan mbaa ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne su ngeen xëyee génn asaka mu dim koor ñu woor ba noppi génn ko teg ca waaw kee nga xam ne wóorul ndax dafa xaw a tawat mu ne ko génneel mudd xoola loolu xoola loolu lépp rek pour bëgg solidarité am suñu diggante kon min ku noo si sunna ab jataay la boo xam ne par dimanche lay am ñu ci jàng lenn ci yóbbal yooyu yonent bi indiloon xeet wi ndax bëgg bu ëllëgee plaideel leen yomb waaw ndax bu ëllëgee plaideel leen yomb plaide mooy ràmm ma yomb waaw yàlla na daal na yomb sunu yos yomb tabarkàlla seen yos yomb jërë ngeen jëf ci ànd bi ci defeem seen rajo buñ ko dégloo benn yoon ñaar ñett ba jàpp ñeent daal di indi beneen bind ba bees incha allah subhanahu wa